Monsieur le ministre, en 2009, je suis maire à Bambay, de théoriser le concept de ville universitaire du un slogan du aussi caractériser une ville mais je dama il que c'est une volonté politique nan la leen mënoon def bañu rationaliser mëna am tam yuñu bolé parce que tay au niveau de Bambey amna problème capacité amna problème mu surnombre étudiant amna problème bir biir dëkk ba sax parce que parewul pour am ay bailleurs yo xamni ne mën nañu tabax kër yu accueillir étudiants yi té posé na problème mais bobu temps dama gissone ni buñu réhabiliter réhabilité woon ISRA parce que damay préférer dellu ci tour yu njëkk yi pour un indi sa ministère le centre de recherche agronomique de Bambey moo doon ISRA donc suñ ko réhabilité woon dellu ci université l'université. Diop à l'université, Diop collège universitaire waa Floride bi ñu ñëwee di def collège universitaire dañ ci defoon ay filières defoon nañ centre communautaire naam mu nga fa ba léegi mais bi ñu defee économie dañ ci dugal agriculture ak ENTIC donc loolu su fekkoon ni jël ko li nga xam ne moom ngeen def tey ISFAR ñu dellu ci turam bu njëkk euh, ISFAR moo nekkoon école nationale des cadres ruraux ñu am filière ITEA ingénieur des travaux agricoles am ingénieur des eaux et forêts am ingénieur de l'élevage tey aussi leneen ñëw fekkatuñu ci muy université des métiers de sëñ Mor Mbacke nga xam ni ñi nga xam ne dañu am bac arabe tey am nañ débouché té mom loolu la gëm c'est-à-dire que gëmul université rek bo xamné ak contenu bo xamné tay dañuy former dañuy former ñoo xamné nekul en adéquation formation bi nekul en adéquation ak offre d'emploi bi donc ma yaakaar ne structure yoyu ñent structure ci ben localité bu melni ni Bambey le ministère de l'enseignement supérieur waroon na mën monter au créneau cette link bi nga xamné mom au niveau de ces différentes structures pour effectivement les leen parce que au moins am nañ une colonne qui xamné mom lañuy retrouver euh, le développement l'agriculture ak euh, métier yi nga xamné ñoo